waaw entrement bi fu ñu ci toll mooy ñu ngi ci ñu koy préparé bu baax a baax xam nañ ne match bi match bu am important si ñun donc pour pour suñu dëkk aussi donc ñu ngi koy préparé bu baax. non ñun du match bi kese lu ñu lu ñu gën a amal importance mooy qualification bi donc ak match bi ñu fi indi tamit donc dañ si concentré wu de xam nañ ne match bi mooy mooy match bu am bu gën a am importance si suñu match yi passé. waaw ñun moom ñu ngi ñu ngi ci dynamique boobu parce que xam nañ ne instant bi am na am na loo xam ne dañ ko war a dem jëli ji. ko ñu ngi si concentration boobu di ñaan yàlla rek yàlla suñu borom mottali ko donc gën ñu may kattan bi gën ñu may force bi gën ñu may doole bi daal ñu dem jëli ko. waaw comme li ñu leen di wax d'habitude rek comme te yàlla dogal na ñi ngi fii euh, Afrique du Sud di préparer match bi comme ñoom ñi ngi foofu nañ toog ci kër yi rek yor kurus yi ñiy ñaan ñaan ñaanal ñu bu baax a baax ñu jël ndam ni